fàtte Issa jënd ak waa sax mu ñëw nag fekk fi bàyyam yu baax yii kii di sëñ araab baax lool ak ngor lool am yar lool waaye nag taxaw xadara bi ba luy yàq boo ko seenee teg ak magam yu baax yi toog kii toog sama ginnaaw Hmm. wax nga ko alalu ku mën doo fee hmm. Hmm. pour si maamam dafa génne mantoom doon ca taabal ja ni gelo war laa mun maa wax lu am sëñ baa nga jàpp bi laa xam dëgg la waaye yimu dafa dem ndax dëgg la ba muy dem ndax ba mu ñëwee ba Mbàkke biiru fas yu mu yoroon biir mi métti mu laaj ca gi sekk mbay mu abal ko fasul toll na fasam mu tuddee ko abdaan abdaan nga pour signer donc délégué sa benn jàkkaarloo moom ne leen bala maa tontu naa sa caamantoon jox leen ko ba mën leen wax dëgg moom la ko yàlla. dénk dénk. te xam ni. te ñu xam ni. bu ñu yàlla mayee ëllëg. bu ñu yàlla mayee ëllëg. doom juddoo ci. doom juddoo ci. dana jàng. dana jàng. dana am xam-xam. dana am xam-xam. looloo tax. looloo tax. joxe joxe xam-xam. joxe xam-xam. gën a fort. gën a fort. joxe xaalis désormais. désormais. da ngeen ko ci dugal. da ko ci dugal. ci amul xam-xam nag. nee ki amul xam-xam nag. mën naa jéem a wut xaalis. mën naa wut na wuti xaalis moom. dégg naa sax fii ñu toll nii. nee dégg naa sax fii ñu toll nii. Euh, ñi nga xam ne tey. ñi nga xam ne tey. Euh, ñooy jigéen ñi. ñooy jigéen ñi. dégg naa lamb mi. dégg naa lamb mi. mooy dañoo lamb. dañoo lamb. ba danañ seen euh, ki leen di bëgg. ba ki leen di bëgg. ñëwal. ñëwal ñu luwee xaalis. ñu luwee xaalis. nga indi ko may gu nga indi ko may gu njëkk. après ñu delloo la ñu delloo ko. parce que yow. ndax yow. amuloo sax loo joxe. amoo sax loo joxe. waaye ñàkk garaaw. waaye ñàkk garaaw. ñàkk xam-xam moo garaaw. ñàkk xam moo garaaw. ñu bëgg na couple bi. ñu bëgg na couple bi. nga xam ne Salma. nga xam ni Salma. mathématicien la. mathématicien la. ci la def mboolem cursus université. ne ci la def mboolem cursus universitaire yëpp. ba ba ñu jox ko li ñuy wax actuariat ba jox ko li ñu ko wax ñëpp dañuy rang di uti fu ñëpp dañuy rang di uti fu moom banque bi ëpp ci Amérique moom banque bépp ci ñoo gis ay diplôme ñoo gis ay diplôme ñu invité ko reer ñu yónni ne ko boo d'accord ñu ne ko boo d'accord ñu jël jox leen ay sartam mu jox leen ay sartam ñu nangu ñu nangu ñu jox ko liggéey ñu jox ko liggéey kon moom it. ne kon moom it. borom xam-xam ak borom. borom xam-xam ak borom xam-xam. ñoo war a ànd ñoo war a ànd. xam-xam day gën a bëri rek. xam-xam day gën a bëri rek borom xam-xam ak borom xam-xam bu ñu àndee. xam-xam day gën a bari ne rek. loolu lañ ciy wut. loolu lañ ciy wut. sariya li mu wax. ne sariya itam li mu wax. mooy ca njëkk ba. mooy ca njëkk ba. nit ñaa doon ci fukki at. fukki at ak ñaar nit fukki at fukki at ak ñaar. fukki at ak ñeent. fukki at ak ñeent. bu ko defee mag ñi. bu ko defee mag ñi. ñooy daje. ñooy daje. takk maye. takk maye. parce que ñoo ñu lañu. parce que ñooñu mineur lañu. te loi bi dafa ne. te loi bi dafa ni. mineur. mineur. est réputé. est réputé. sans volonté. sans mineur du takkal boppam. mineur du takkal boppam. du jëndal boppam. du jëndal boppam. du jaayal boppam du jaayal boppam. waaye ñaar ñoo xam ne génn nañ ci mineur. waaye ñaar ñu génn ci mineur. seen baay di leen ñaanal. seen baay leen ñaanal. seen baay seen seen. Euh, ku ko jigéen kii du maye. bàyyi ko jigéen kii du maye. moom mooy jàkkaarloog jabaram. moom mooy jàkkaarloog jabaram. ni ko. ni ko. ñaan naa la ci farata yàlla ñaan naa la ci farata yàlla. ak sunna si Muhammad ak sunna si Muhammad. mu ne ko. mu ni ko. nangu naa.